ñoo ngi toog ak euh, Petit Kona bu kaay baax euh, ne nga sa combat bi la gën a métti mooy sa diggante ak euh, Siteu bu Saloum yaa may dégg ñu jóge fa xuus tuuti bu la neexee mën nañu xuus tuuti parce que dama koy faral di laaj aussi mbër yi may seeti ah mbër diggante mbër ak mbër nga gis mbër xool moroomam naw ko ci ay qualité maanaam des fois nga gis mbër man damay dégg defaa mbër mu ne diw dama ko naw parce que dafa am fit. des fois am ku ne diw dama ko naw parce que dafa mën a bëri des fois am ku ma ne diw dama ko naw parce que dafa ñeme entraînement des fois ma dégg ku ma ne diw dama ko naw parce que dafa am gàllaaj yow lan ngay nawee mbër. mbër li ma nawee mooy gëm-gëm ndax yi yooyu yëpp dafa lalu ci biir gëm kon mbër moom loo mën a nawee rek nawee ko gëm ndax bu amee gëm-gëm gee rek lépp day yomb. maanaam mbër bu gëm làmb wala mbër bu gëm boppam wala mbër bu gëm li muy def wala. boo nee boo nee mbër rek boo nee gëm-gëm rek jeex amu na lépp waaw mbër boo gëmee boo amee gëm-gëm rek mbër ma gën a naw ci la bokk ko xam te day am gëm-gëm te ñaari mbër yi ma la limo limal moo ko am ndax dañuy teg euh, tey dañuy teg par exemple dix millions rërëg na ne man affaire yi man la li fi nekk dama koy jël. bu ñu ne ponkal yi mu ne leen duñ dara nii la uh-huh. kon kooku gëm-gëm la am waaw uh-huh. ah, kon ñun mbër loolu lañu loolu la ñu nawee mbër waaw kon yow da nga naw rek moo tax nga bëgg a bëreeg moom dama ko gën naw waaw naw naa trop macha allah Modou Lo aussi da nga naw respecté ko moo tax nga bëgg a bëreeg waaw ndax dama ko yàgg a seetaan ndax Modou Lo suñu daa booy xool suñu génération la bi muy bëree ñun fekk na ay tout temps waaye ñu ngi koy suivre xam na combat boo xam te ne da fekk ma def soog sax da fekkoon boobu maa def soog waaye lu mu metti metti combat bi saa yi ñàkku seetaan problème la waaw te am na it dañuy toog wax dëgg yàlla di toog di jëlee combat am di ko seetaan am lu ciy jëlee am lu ciy jànge parce que aussi gis nañ fii Balla Gaye 2 mu taxaw avi avoué ouvertement que ne moom Tyson la daan supporté bi Tyson di bëre mi ngi gën a nekk xale nee na bu bëre woon daan day jibile mais ba mu ba tollu ci dafa bëgg bëri ak Tyson te pourtant bëri na ak moom daan ko avancé ñu ont wat gànnaanoo bi nekkaat ay xarit tu vois ko ne duñu seen li ma la wax rek lepp gëm-gëm gi moko lal rek gëm-gëm mi lal ndax euh, bëgg dafa fort te ki la bëgg mëno ko fay ki la bëgg da rek rek pièce de question bi ni des fois nga laaj ko mbeur mu fogné daf mais des fois nga kii ñu ne la yii waa ji waa ji mbëru loxo la kaw gay bëre des fois nga xool ma ñu ne la non non suuf gay bëre des fois ne la sax mbëru wet la yow lan nga yow ci foofu. non man mbër complet la booy bul bul ma fontoon nag booy nag du ma la laaj sama question nga naan la dag maa bëgg a wax ne yow sa yaram fu moo tax mu wax la wax naa la weddi nga ñun mbër complet nañ ndax man dama lay xamal sama qualité bëri lan la man bu may bëri ji arène boo ma conseillé daa ma daanu. waaw nee naa gars yi mbër mu mën a bëri boo ko bëri boo ko ne bëree lii rek rey nga ko. sama combat ak Siteu bu Saalum loolu dal na ma ci. conseil waaw. nga gis ouverture war ko exploiter nga bàyyi ouverture bi respecté conseil. dégg li ma la man boo ma bàyyee ma bëri rek mu bëri moo tax may la mbër complet la ndax man foo jaar may bëri. booy xool booy xoolal fi nga toog di mën ngay waxal mais dafa am ñoo jàkkaar lool xam nga jàpp ne xoolal xam nga yow la moo la trompé bi xam nga yow maag yow dañoo yàgg toog di waxtaan instant bi dafa mel ni maag yow ñoo toog di waxtaan te dafa am loo yaa ngi jàkkaarloog moom toogal fii naan man mbër complètement dama complet autre chose un jour nga ñëw dugg ci géew bi gars ne ah kii la Seydina seeti woon nañ xool lan lay indi dama ne yéen a ngi may seetaan Petit Kona mbër complet la xeex laa mënagul xeex laa moonagul ci làmp ci xeex bi di nga ko di nga ko di nga ko liggéey. jaru ko Quench Boy nee na boo mënee xeex coono boo mënee bëri xeex coono la. Quench moo la wax loolu. Quench Boy wax loolu moo la jox conseil boobu jeex xam naa ne yow bu ñu bëggantee après dina leer yow bu ñu bëggantee di nga xam ne mu ne la boo mënee bëri. xeex coono la boo mënee bëri xeex coono la. kon moom daal dafa jàpp ne moom mën na bëre. macha allah déet déet déet loolu kay du mën nga koy wax. Quench mën na bëre. du mën nga koy wax man kay akamaa ci xam dara. leer na kon sa ko mën a bëre mais mais bëri duur la. mais pour aha kai xam ne dafa mën a bëri. kay ah kay ko kon kay mën na. waaw mais nag affaire bi dañ ne bëri duur waxuñu bëri simple fekkoonte ni bëri simple la nga ne mën a bëri du jip mais affaire bi bëri simple la des fois nga teg ba nar a teg clé perkit jóge fële kan nga wàcc man loolu gis naa ko fi. waaw mais xam ñun bool lañ juddoo ak taatu tefes yi li may wax rek dañu gasal kam nga sa ma ñuy làmb moom loo ci xaar lu yomb demal nga toog dem tëddi mbay mbay guy gi meen si xam na moom bu baax. xamante ngeen. bu baax. na foo la mbay guy gi ñoo bokkoon benn génération bu ñu doon ànd Dakar ma ne ko petit xam na ko bu baax. mbay guy gi from Medina. mbay guy gi laa wax kay. leer laa la wax. on passe ci leneen ah euh, petit kon da seetaan football. man da seetaan football kay. ban nag li ma gën a bëgg moom mooy film. film waaw compagnie Dakar rek du ma seetaan. waa d'accord léegi d'accord da ngay seetaan film léegi kan mooy sa acteur. Petit Kona Kona. Kona Arnold Schwarzenegger mooy sa jeex na Kona laay seetaan. Kona mooy sa acteur. Ah, léegi ban film mooy sa meilleur film film boo xam ne mën nga ko seetaan téeméer yoon doo ci doyal. mooy Kona bi mu demee mission. non bi mu dem mission mooy bi mu demee mission bi ñu jëlee doom ji. bi muy def croix bi nii. commando ba mu jëli doom ji. Ah, boobu moo may daaneel quoi. boobu moo la daaxal ci film la. mu daaxal ci film yi. waaw ah, d'accord léegi da ngay seetaan football. football euh, ban équipe mooy sa équipe. man équipe ah, laaj nga ma <laughs> laaj nga ma question bu ma neex. sama déggoo. jàpp moom déggoo lan mooy déggoo fan mooy déggoo ñan ñooy déggoo man je comprends pas. déggoo li ma la xam. équipe bi ma gën a neex kay wax naa ko déggoo ak jokkoo ñaari équipe yooyu laa moom moom. déggoo fu mu toj jokkoo fu ñu toj. ah laa ngi laaj nag lu neex déggoo mooy daa raxmaan gi nga nekk ASC déggoo. ASC déggoo mooy sa ASC koñ mooy sa équipe. ASC jokkoo ñooy sama équipe. ñoo tax a dem ñoo may tax a toog di seetaan. pour man bu ma leen sa équipe danga ma naan Barcelone wala. waaw kon euh, petit kon question réponse lañu nekk ba léegi nga ni sa équipe mooy jokkoo. ASC jokkoo. ASC déggoo ñaari équipe yooyu laa non non ben équipe nga may jox ay say joko nga ma jox. nday une euh, wax nday di Cheikh day teudé ah, joueurs yi nak amna fi de grands joueurs hein amna ño xamné jor nañ fi jaar nañ football ay classe Zidane Figo ak Rivaldo Romario jaar nañ fi Maradona actuellement ñom Messi Cristiano Ronaldo tu vois euh, ay ay ñom euh, ay Van Dijk ñoo fi nekk ay ñom ak kan joueur. joueur moom am naa ñaari joueur. benn joueur benn. ah déet ñaar laal mun jox. benn nga may jox. Aliou Thiaw mooy mooy kan lan mooy Aliou Aliou Thiaw. numéro 6 Jokko. Zidane tur la di. waaw mooy sa joueur. waaw numéro 6 Jokko. moom mooy numéro 6 euh, Jokko. mais man xaw ma ko Aliou Thiaw moom fu mu toj kooku mooy kat kooku lan la mën ci football. boo ko bëggee xam ñëwoon seetaan si ko. te ngeen koy doon laajte Aliou Thiaw numéro 6 ñu lekk ñu leen ñu naan fii la dëkk wala lii. c'est un excellent joueur. bien sûr. leer laa la wax kay. jàpp nga ni tey ku ko yóbbuwoon Manchester am na fa place. moo ko fay takk numéro 6 bu ñëwee kay dootul am dara du naru. jàpp nga ne tey ku ko yóbbuwoon Real Madrid tey mu joué fa. dama ne la. waa dakaar bu ñu ko seetaan si woon ñëw wax Aliou ko xam nga sànq am na benn question bu ma lay wax nee naa leen ñi ko man amuñu sens. Zidane ñu ko dàq la fi foofu. ay ndax am nañ chance bi moom. waay saay kii kii reer a laax ak kii reer a ginaar biir du fen xam nga du fen waaye ne xam nga ne la nga reere kii ma dàq lu ma reere dégg naa la de toute façon nit day gëm boppam gëm sa boppu waaw day feeñ ci day feeñ ci lépp mais booy ban jour nga xëy nga am lu la metti jour boobu ndeysaan nga am lu la naqari ak jour boobu lan moo xewoon jour bi la gën a metti ci sa àdduna waxuma la sa carrière de sa àdduna bi nga juddoo ba tey ba ni ba ni may wax ak yow jour bi nga xëyee rek ndeysaan nga am lu la metti ak jour boobu lan moo xewoon. non loolu moom am na ndax ñun yàlla def na dañoo dëggu ndax dëggu gi mooy comme tey jii du lépp luñ mën a wax waaye nag bu ci làmb nga ma ko laaj moom mën a tontu. sa dund rek sa àdduna. non sama dund moom comme li may wax rek ñun amuñu lu ñu naqari ndax ñun ay Baay Faal lañ. ñun moom soit lu ñëw ñu seere ko. non day am des fois naqar day am. te <laughs> déggoo li ma la ñun amuñu lu ñu métti. loolu la laa la wax laajal ñu ma dëkkal amuñu lu ñu lu ñu métti. mu may bàyyi faal euh, sa giiru dund bi nga juddoo ba nii ba tey ji may wax ak ban jour xëy rek am mbégte boo xam ne ndeysaan mosoo koo yëg sa àdduna ak jour boobu lan moo xewoon ci sa àdduna. xam nga question bi ba ma ko posé woon ci làmb daf may neex sax maa la koy wax bu dégg ma wax loolu. benn jour laa am lu ma metti metti ma torop ba mu jaral ma gédd reer mooy dafa am làmb jamoon fii moom mu ñëw def signature contrat tournoi signature contrat bu war a bëri ji mu ñëw sama mag bi ne ma doo bëri ji